www.sangatv.com إلى الهدى Taal yal na fi yàlla dolli jàmm nuyu Thierno Mouhamed Bachir Taal di xalif mam Cheikh Omar Fouti Taal radiallahu taala anhu ñaanal ko mu yàgg fi lool te wér waaye nuyu xaadimul euh, hadrati di euh, Thierno Marani Taal euh, di xalif Thierno Muntaga Muntaga Taal ñaanal ko moom itam ak njabootu Thierno Seydou Nourou njabootu Thierno mam Muntaga Taal yëpp yal na yàlla nuru seeni leer nuyu al imam Thierno Seydou Nourou Taal nuyu bu baax a baax général des Tidianes Serigne Babacar Ibn Alhaji Mansour nuyu ko ak njabootu Seydil Hadji Malick yëpp nuyu bu baax Serigne Mountakha Mbacké di xalif général des Mourides ñaanal ko mu yàgg fi lool te wér ak njabootu Cheikhil Khadim gépp mbokki mu ngi noonu nuyu bu baax Chérif Abdoulaye Thiaw Laye ak njabootu Mame Sidna Limamou Laye yëpp nuyu bu baax a baax a baax euh, Serigne Cheikh Tidiane Seck ca Ceneba Serigne Cheikh Tidiane Niass ma nga Kaolack ca Medina Baye Serigne Cheikh Tidiane ma nga ca Kaolack ca Léona Niassène nuyu baax a baax a baax euh, mboolem xalif généraux Serigne Habib Ndiaye ca Bousra Serigne Mounirou Ndiéguène ma nga Thiès ñaanal leen yal na yàlla yokku leen dëgëral sëñ Abdou Dramé mbokk mi ngi noonu euh, am mbégte bu baax a baax sëriñ Mouhamed Kabir kan euh, ca euh, lew na kaneen moom itam nu ngi koy ñaanal yalna ko yàlla yu ko dëgëral sëriñ Ousmane Ka di xalif sëriñ Jibel Ka ak njabootu bilaaleeg sàmb yu ko yëpp gis nga ñu ngi fii ci 38e édition bi nga xam ni moom la ñoo def fii ci mosele Thierno Saïdou Nourou ñaanal leen yal na yàlla yu ko seeni leer gërëm bu baax a baax sëriñ Jili ñangi mi fi bàyyi koo léegi ak ay ganam waaye nag tey nag dama dalal sa sunu wayjur dalal Haj Bokar lii xaaju Ousseynou lii sunu soppe xaaju Ousseynou moom itam dalal ko daaw nii lañ ko nekke woon ak moom waaye itam sunu xarit sunu soppe di borom xam-xam boog di Seyd Ahmed Tijani euh, aaj njaaj tabarakallahu barki démb rek jamono yee lañu ñu daje maak moom ca New York mu def fa bés bu mag a mag waxtaan wu jéggi dayoo tey jii mbokk yi daañu gën xam kanay Cheikh Omar Fouti Tall euh, dalal sunu baay bi euh, sunu baay Alhaji Omar aaj tabarakallahu moom itam euh, ñu bokk ci mag ñi nga xam ne ñu ngi ci xadara bi war a waxtaane euh, kanay mam Cheikh Omar Foutiyou Tall radiallahu taala anhu euh, góor gi ma bàyyi la nga nuyoo Baye Omar nu lay nuyu nu ngi lay ndokkeel ci ziar bi bu baax a baax a baax bismillah alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala qaidi al ghurri al muhajjalin ونبينا وحبيبنا وشفيعنا المنحم لنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم toujours ci wolof la ñu def wala ci mën nañu ci pulaar wala ci wolof bu bu la neexee nga wax pulaar bu la neexee nga wax olof waaye bu fekkee nga olof waxal olof rek papa kii bi ziyaara tey bii di ziyaara Cerno Chahidou euh, Nourou Thierno Mountaga <laughs> waaye ren ñu tuddee ko parrain bi ñu jox ko Thierno Amadou Makhtar Sakho baax na waaw bisimilah kon maa ngi nuyu ñëpp rawatina nag ñi nga xam ne ñi ñoom la suñu xarit bi suñu doomu lay bi suñu soppe bi lim mhm. ñoom ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal. jërëjëf. ndax am na loo xam ne lii xidma la. Mhm. ñoom ñooy xuddaam yi. Mhm. taalibe yi dégg naa kenn ci ñoom di de wax sànq ni taalibe yi ñooy seeni njaati gi. Mhm. kon yàlla nañu yàlla may fekk ñoom ñëpp ci loolu lañuy taxaw ci loolu la ñuy euh, def seen bépp mbir bu ñu am di ko def barakallah bu jaahi rasul sallallahu alayhi wa sallam euh, ziyaara bi Ceerno lii mu ngi nii xam na bi muy sosoo ñetti rek la ñu woon ñetti ngeen woon bi ñu koy sos man ci laa bokkoon. ziyaara bi ki ko tàmbali Thierno Mountaga la. waaw ziyaara Thierno Seydou Nourou bu Thierno Mountaga organisé pour la première fois man ci ñi ko ñu nekkoon ak moom ase ses waaye ba mu koy organisé cosaan la moo nekkoon euh, pour ziyaara Thierno Seydou Nourou. pour ziyaara Seydou Nourou Thierno Seydou moom moo ko organisé woon ziyaara yëpp di def. Mhm. ba yàlla def ko gannaaw loolu mu bokk ci Seydou Ceerno Seydou Nourou rawda wahida mhm. rawda wahida mhm. nit ñi di leen ziyaare comme une seule personne barakallah Seydou Nourou Cheikh Omar Foutiyou Tall Muntaka Ahmad Muntaka Cheikh Omar Foutiyou Tall maa ngi ñëwaat léegi nag incha allahu taala sénan chez nous nu ngi lay nuyu euh, daaw ren del si waat nañ ko ak préparation bi nga xam ne boobaak léegi yéen a ngi ci euh, muy ci wàllu organisation waaye itam ci wàllu taxaw xadara bi nga xam ni boo fi ñëwee rek nga xam ni ëtt bi ëttu leer la waaye itam ëttu barke la ndax cosaan la rek mooy maam Cheikh Omar Fouti Tall radiyallahu anhu wa sallama ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bandiraɓe caggal yettude allah e julde annabi tedduɗo o mouhammadin alayhi wa min calmini funnague e hirnague rewo e e ɓaleri mi salmini papa eh, an e ceerno oumar acce e ceernama tidiani diathie e mawniraɓam sehilaɓam jinnaɓam wonɓe ɗo e yamirore khalifa o ceerno mouhamadoul madani mountaga ahmadou mountaga cheikh oumar al allah artiri en hikka kadi en jottimo ɗo en joɗinoma ɗo rawane en joɗinoma ɗo rawande hikka allah artiri en ɗo e joɗade siftorde gollade rewde allah jokkude enɗam moƴƴinde diineji men e hawridinde enɗemeje men en jottimo ɗo hannde holko addi en ɗo addi en ɗo ko ceerno saydou nour cheikh e ceerno mountaga ahmad asli o ko cheikh oumar al hikka noon ziyara o gueɗe ɗe fof teddungal ngal waɗa koye ceerno ceerno amadou mouhtar laamiiɗo julɓe to to mali o jibinako e fergo e on saaha allah artirimo ɗo e leydi sénégal ɗo wiyete mauritani ɗo wiyete ɓoggue kanko noon kanko amadou mouhtar sakho ko kanko ceerno amadou mountaga cheikh oumaral fouti umminoɗo to leydi ñooro on ko kanko jippiɗo ɓoggue kanko jangguini ɗum defte ha allah hokki ɗum ko rokki ɗum ko ha allah itti alaji saydou nour cheikh leydi maali ari ha ɗo wiyete dondu ari ha ɗo wiyete e ceerno amadou mouhtar sakho kono wona duuɓi sappo o tarbini ɗon o liggii ɗon o hidmi ɗon ala ko waɗani ɗon e golle moƴƴe kanko ceerno seydou nour cheikh oumar ha allah ittimo ɗon addi mo ndar e juuɗe alhaji malik sy ha tiwawon ha ɗo e dakaru hikka noon allah joƴƴini en ɗo ceerno madani miijo mum moƴƴo haqqille mum moƴƴo jokkude ɗum enɗam e teddungal mum e gandal mum e kaara mum o wi sellata koma ciftoɗen ceerno amadou ɓesgu cheikhu oumar fof ha dañi ndeɗo moƴƴere holɗum ceerno seydou nouru gandal mum e nunɗal mum e kaara mum e moƴƴere mum e teddugal mum e jogaade ɗum geɗal e hakkude mum e laamɓe ko oɗo amadou mouhtar sako nanne makko ngal gandal e ngol kulol allah e ngal kaara e allah hokki en ɗo ko ɗum noon papa an mi junnotaa ko en ha ceerno amadou tidiane salmina so allah jaaɓi so konngol arte yam mbami haal holko saabi o e o fuɗɗori e ko ahbab cheikh oumar al foutiyu ceerno mahamadul madani wi ceerno go gorko goto ne wiye ceerno alaji moussa tall nan ɗo no wuuri e goɗɗo no wodni e mamadou moussa sy nan ɗo no wuuri e, e yahaya dia en ɓe no guuri e demba sy en e woɗɓe woɗɓe nde alhaji saydou nouru rutti e joomum lewru ndu filti hitande nde arti ñalawma o arti ɓe ndendi ɓe gaari e ceerno mountaka ahmad ɓe mbi aɓe jiiɗi waɗande ceerno mountaka ceerno saydou nouru ziyara ceerno munta ceerno mountaga wiɓe mi wawa mi alana ɗum mi yamiraka ɗum ɓe jeehiɗo alhaji abdoul asis sy radiallahu taala anu dabah mhm. ɓe mbi ɗum mhm. ar kaala e ceerno muntaga mhm. ñaganoɗa min ceerno muntaga yo jaɓan min min mbaɗa ziyara ceerno saydou nour cheikh oumar alhaji abdoul asis sy malik ɓorni paɗe mum ari haɗo ceerno muntaga o wi ceerno muntaga fuutankoɓe ɓe julɓe ɓe almuɓe ɓe fof ndendi mbi ne jiiɗi waɗande ceerno saydou nour ziyara ɗum noon min mbeɗa mbeɗa yiiɗi jaɓa jaada heen o wi mi jaɓiri sabu allah e nalaaɗo allah seydna cheikh tidiani mi ardini cheikh umar al ɗum ɗo addi ziyara o ɓe pelliti wadde ziyara o ɓe tambi ziyara o mhm. ceerno mum taga noon mhm. woni baafal mhm. woni damal woni becce woni fofof tambi fuutankoɓe e aduna o e julɓe fof so julɓe fof gari ɗo e leydi he gari ɗo e wuuro he gari ɗo e dakaru o jaɓɓo ɗumen o bismo ɗumen ha yettiɗo yettiɗo ci gattal rek nga dimbali ñu xam naa nga résumé la ko ci wolof Thierno Mokhtar Sakho mi nga xam ni mooy mooy mooy parrain bi ren euh, yaakaar na mi ngi gane at 1864 ca Ségou nekk Mali mais nekk taaliba Cheikh Omar Fouti Tall radiyallahu anhu nga wax ñu tuuti rek Thierno Mokhtar Sakho moom ñu dippee euh, ziar bi ren papaan Thierno Amar Mokhtar Sakho papaam moo àndoon ak Cheikh Omar al Fouti papaam moo àndoon ak Cheikh Omar al Fouti yàlla def papaam bi faatu si jihaad moom xamul papaam bu mu juddoo mu nekk xale bu ndaw papaam faatu yàlla nag moom mu màggee foofu si jihaadi bi ci ségu ba yàlla may ko moom mu màggee noonu mu jàng alquraan foofu la commencé jàng alquraan ba mu am foof fukki at ak ñeente mu jógee fa ñëw yàlla may ko nag mu continue jàngam mu continue jàngam mu ba mu ba mu nekk xaadi ci diiwaanu Fuuta Tooro mu toogoon fu ñu wax Oggee ci dowla Muritani la nekk yàlla may ko nag mu am xam-xam bi yëpp yàlla may ko tamit mu am ñëpp bugg ko amul kenn ku ko bañ. barakallah ba mu yàlla may ko nag foofu mu toog foofu. Mm-hmm. di jàngale di am daara daara yu mage daara yu kawe am nañu sëriñ yu bare nga leen dégg tey foofu la ñu ci daaram la ñu génnee yàlla may ko nag Ceerno Amadou taga kooku mooy seetu Cheikh Oumar Foutiyou Tall ku njëkk ñibbisi waat fii Sénégal ak Mauritanie kooku moo jur Ceerno Muntaga. macha allah kooku koy muy mag Ceerno Seydou Nour. mu mag Ceerno Seydou mu jógee Nioro ñëw fekk si ko si boggee. Mm-hmm. jàng ci moom. janga ci Amadou Moukhtar saako ba mu am ijaaza ba mu am lépp yàlla def na Thierno Seydou Nourou dégg loolu Mali ñëw tamit fekk ko bëggee Thierno Amadou Muntaga jàpp ko ci loxam yóbbu ko si ci Thierno Amadou Moukhtar saako nee ko jàngal sama rakka bi Thierno Seydou Nourou an nekk ak Thierno Amadou Moukhtar saako fukki at Thierno Seydou Thierno Seydou Nourou moo yore woon tool bi moo doon béy moo yore woon ndaal bi moo doon rooti moo yore woon ñax fas bi moo doon dem moo footoon yëre Amadou muxtaar saako moo toggaloon ci kër gi fukki at amul toogaay amul guddi amul bëccëg. Thierno Seydou Nour Thierno Seydou Nour. fukki at la ànd ak Thierno Amadou saako Sakho. Mhm. foofu la jàngee xam-xam bi yëpp. ba Thierno Amadou Moukhtar Sakho may ko ijaazam ñoonu la jógee boggee dem Saint-Louis. Mhm. ñëwul woon saint ngir dese saint wi daa ñëwoon Saint-Louis komte jeexal na njàngam. dafa ñëwoon wuuti dara pour nu mu joxee adiya pour sëriñam mhm. mu dajee foofu alhaji malik si radiyallahu taala alhaji malik foofu la alhaji malik si ne ko teeb doo ñibbi ne ko kala ne ko doo dem yow mi ngi noonu Thierno Seydou Ngoog incha allahu taala daañu ci ñëwaat léegi jërëjëf Hadji Ousseynou euh, leer na am na ñu mbégte bu baax a baax sunu baay Alhaji Omar yal na yàlla gën a barkeel Cheikh Tidiane yi ñu dugg direct nag ginnaaw bi ngi nuyoo da nga may wax ndax mbir mu ne am na cosaan te fii nag cosaan la mooy Cheikh Omar Foutiyu Tall radiallahu anhu damay wax toujours ne nit pour nga bëgg ko il faut nga xam ko ba noppi ma bëgg a gën a xam nit ñi xam kanay cheikhu radiallahu anhu ndax ku am sët yu mel ni doom sët bu mel ni Cerno Saidu Nuuru sët bu mel ni Cerno Montaga Tall radiallahu anhu ak sëtam yi nga xam ni ay kenn ku ci nekk not na continent te Cheikh Omar a leen meññi kon kooku euh, kenn xamul Cheikh Omar kanay Cheikh Omar Foutiyu nga xool réew mi bari na ko fi takk kala taal mooy Cheikh Omar Foutiyu Tall radiallahu anhu bëgg nañu télé téléspectateurs yi jàkkaarloog télévision Futur Média ñi nekk France nekk Europe yëpp laay wax sax ñu nekk Amérique Asie ñu ngi toog jàkkaarloog nun nu gën a xam kanay Cheikh Omar Cheikh Tidiane yi أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الحمد لله وحده ولا يدوم إلا ملكه هم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده ورضي الله تعالى an udbi almaktuumi almaktuumi daairati alaqdaa bi mumiddihim fi lgayba waarisi jaddihi salla allahu alayhi wa sallam wa radiya allahu an khalifatihi ala alitlaaqi madhara katmihi man maqaamahu harazimiyun wa baad saadaati sajidaati ashaaba sumuwi walmaali assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh la shakka inna hadihi alhadarat alahmadiyata almuhammadiyata alumariya min hadaratihi taala almuqaddasa subhanallahi wa taala amma yushrikun papa an gannaaw biñ sante yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaan yàlla subhanahu wa taala yal na yàlla yokku leer ak nganeel ci suñu seex suñu wasila cheikhana tijani radiallahu taala anhu yokku ko ci nga ki nga xam ne mooy leeru fuuta di leeru Mauritanie ci ak Sénégal di leeru Afrique yëpp muy alxaaji omar ibnu saïd alfuutiyu ki nga xam ne boo ko buggee xam mooy fadaxaka moom mooy fuutiyu xalwaariyu tooriyu gédewiyu moom mooy alxaaji omar ibnu saïd radiallahu taala anhu di la nuyu yow ci sa bopp di jaarale nuyoo ñi nga xam ne kilifa réew mi yëpp ci yow waaye nag di njëkkee ci nuyoo bi xalifatul amma li usratil umariya muy Cerno Basiru Baaxa ki nga xam ne ci Louga muy xalifatul usratil umariya di ci tekki nga xam ne mooy xaadimul xadarati man maa koy wax moom mooy ustaadul xadarati di ustaadul axlaaqi di ustaadul ximami di ustaadul saxaa'i muy Ceerno Mouhamadul Madaniyu Muntaqa Ahmad Muntaqa Cheikh Umar radiallahu taala anhu di nuyu rakkam yëpp di nuyu Serigne Makki ak Serigne Habib ak ñi nga xam ne mooy ay Serigne muy Ceerno Saïdou Taal ak njabootu seen Mountakha di nuyu kilifa bi ki toog ci nga xam ne suñu waajur la bu ñu toogee moom ndigal rek moo ñu wax loo waaye moo yor lépp di nuyu suñu xarit suñu soppi muy alxaji Hussein di la sargal bu baax a baax lii nag dañ ciy sawar bu baax a baax di la jottali nuyoo diaspora bi yëpp mhm, mhm. waa France ak waa Belgique ak waa Amérique yëpp di la jotte di jottali fii seen nuyoo incha allahu taala loolu laaj rek ci seex bi incha allah ci la ñuy njëkkee bu soobee yàlla mooy mooy tey kanay Cheikh Omar cheikh umarul fuuti radiallahu taala anhu mooy benn góoru yàlla di nit ku ñuul di pël di xaal pulaar làkkam di pulaar dëkkam ji fuuta juddu ci hijriya at bi ñuy wax haj bachar boo nee haj bachar muy mille deux cent dix ci hijriya yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu dee bushra mu ngi judd ci mille deux boo ko wàññee dalay jox 1797 wala 1795 ci la gane àdduna ci dëkk bi ñuy wax xalwaar wa xalwaara mansha'u cheikhina ama yubshiru kii mooy cheikh Umar radiallahu taala anhu buñ la laajee kan mooy cheikh Umar koo mun a doon ak foo mun a nekk mun nga tontu ci lu gàtt moom mooy góor gu ñuul boo xam ne ki doon nu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di nit ku ñuul ci gaara afariqa ndax wa rabbuka yaxluqu ma yashaau wa yaxtaar ma kaana lahumul xiyara subhanallahi wa taala amma yushrikun buñ la laajee kan mooy Cheikh Oumar boo seetee ci Afrique wala ci adduna bi yëpp ci téeméeri réew ak juróom-ñeenti fukk ak juróom-ñetti réew ñu laaj la kan mooy ku ñuul ku ci téeméeri réew ak fukk ak ak juróom fukk xam moom mooy Cheikh Oumarul Fouti radiallahu taala anhu génn adduna ci 18 64 ci ki nga xam ne moom wax na ko fi léegi ki ñu paarale bés bi muy Cana Muxtar Sakho mu ngi gane aduna 1865 alhaji Seydou Nourou magee ko at ndax moom mu ngi gane aduna 1864 ci 1864 boobu la Cheikh Umarul Fouti radiallahu taala anhu làqu ci Bajangara incha allahu taala xëy na dinañ ci ñëw ci Dagambere li ma dégg lépp Thierno ñu wax ni Cheikh tukki na ko ci ay réew te booba avion amul mhm. euh, jumtukaayu tukki jafe woon na lool ñaata réew la seexu tukki mu nekkoon loo xam ne kiimtaan la boo xam ne jéggi na ak at xam ne seexu dund na ko. Cheikh Umarul Fouti radiallahu taala anhu borom xam-xam bi ci baabaa bi ki ñuy wax Njaay bunu Omar di taalibe ci Cerno am Muxtar Saaxo juddu 1870 génn àdduna 1963 Cerno Njaay bunu Omar di taalibe ci Seydi Alhaj Malik radiallahu taala anhu moom wax na wa umruka is safarta lil hajji qadruhu salaasuuna aaman zaaka fil kutubi saparu Cheikh Umar bi muy génn fuute mu ngi am fanweeri at fi mu mujjee tàggoo dëkk bi ñu ngi koy wax wuro Mahdiyu mu fa daje ku ñuy wax Abdul Karim Diallo kooku moo ko may axtu ci tariqatul ahmadiya at tijaniya tukki bi bi mu jógee wuro Mahdiyu jaar ci Mali jaar ci Sahal ba dem ci Hind dem ci réewu arab yi ba ñëw ci Égypte ba bi mu demee Makkatal Mukarram dem almadinatu almunawwara ñëwaat Makkatal Mukarram ba bi mu ñëwaatee ci Fuuta gannaaw bi mu jaaree zihaaban wa iyaaban ci dëkk bi ñuy wax Nigeria ñaar fukki at la def ci tukki bi boo ko seetee bi ko sëriñ bi di tënk nee na bi mu demee ba ñëw lu lépp lépp gis na ko ci xam-xam gis nañu baax ñëpp andi la ay ngëneel yu bëri waaye nag bi asraari aw bi awraadi qutbil aarifiina wa asriha atayta biha nafan li kulli alqabaili bu la laa bu ma la laajee yow wala nga laaj ko ku mun a doon boo buggee xam kan mooy umarul fuuti yu laajal gaañu baax ñi ci réew mi mm. di nga xam kan mooy moo umarul fuuti mais ci fanweeri atam ci la génn ci la génn fuuta bi muy dugaat fuuta am na ñaar fukki bi mu dugaatee fuuta am na ñaar fukki at ay atam toll ci ñaar ci juróom fukki at juróom fukki at juróom at yi ci tegu mu ngi ko def ci réew mi diggante Gambi ak Bawol ak Kajoor ba dugg Fuuta bi mu duggee ci Fuuta di diisoog mag ñak borom xam-xam yëpp lépp boo ko dajalee comme dañoo dañuy dañooy gaawantu ci ñaari at la ci ñaari at yooyu boo ko tegee ci juróomi at yi mu am juróom fukki at ak juróom ñett muy ama hënnin fekk jëloon na ndigal bi dëkk bi muy ñëw waaye foog mu diis ak borom xam-xam mhm. boo ko bëggee xam bi mu jaaree ci Gambi Ahmad am na Abdallahi foofu boobu la ko jox jox ko takdim bi mhm. kooku mooy sëriñ ci Cheikh Abdallahi Niass mi nga xam bu dee bi mu ñëwee 1848 ci Hoore Fonde fala ko sa waajur suñu mhm. maam suñu waajur suñu sëriñ muy alfahima maa yoro wele fala ko joxe woon ser bi ak li nga xam ne mooy yóbbal bi jóge woon ci daw faali mu jël secret bi jox ko ko nee ko xaarandil fukki at 1858 ki nga xam ne kenn dootu ko présenté ci jamono muy Seydil Hadj Malick gane jamono waaye ci ñaan Cheikh Oumarul Fouti yu ci la gane aduna ndax ñu ngi dénkoon secret bi alfahima ay la maa yore wala radiyallahu taala radiyallahu taala anhu sama tijaan yi mi allahu anhu yal na yàlla yokk leeram euh, papa xam naa aha uh-huh. hmm. Wow. Wow. كيف شيخ عمر الفوتي في مقدمة كتاب كنت ألاعب نفسي في وضعها عندما ذكرت شيخ عمر الفوتي رضي الله عنه qultu innahu kalimatun kalimatun fuutiya tahaddat hududa hududa albilad wa kaafati arjaiha نطق بالكلمة فردده العالم بألف لغة ولسان هذا هو الشيخ الفقيه العارف بالله الحاج عمر بن سعيد رضي الله عنه الفوتي كلمة فوتية الشيخ عمر الفوتي كلمة فوتية كلمة فوتية تحدت أو تعدت حدود الزمان والمكان fa nataqa bilkalima summa raddadaha alaalamu bi alfi lugatin wa lisaan bi alfi lugatin wa lisaan hada huwa mawlud ida nadartahu fi janibi rujula tajidu annahu ala alqimma wa fi janibi alulmi alilmi fa innahu ala alilmi bilmiaad فلما وفيت الميعاد كلها أو كلها إن شئت تجد شيخ عمر الفوتي أمامك أمامك ما شاء الله وعندما تنظر في ناحية الروحانيات الطيبة الموافقة بالسنة النبوية صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم tajidu kadalika abra tajidu fi sunnati sallallahu alayhi wa sallam naam abra الرماح تجده على أعلى مستوى من الذين تكون له روحانية سامية وفي الواقع لم يخرجوا قط دائرة السنة النبوية المطهرة رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنه هذا هو شيخ عمر هذا هو شيخ عمر نعم بالألوفية ci dund gi nga xam ni jot dund ko ko Thierno Mountaga mhm. mi nga xam ni sëtam la radiallahu anhu mhm. dund gi nga xam ni dund nga ko ak Thierno Saxidu Nuuru mhm. nga xam ni sëtam la radiallahu anhu olof di wax ne la ca maam sëta koy jël ndax ñoom ñaar euh, mën nga ñu wax seen dund kéemtaan bi nga xam ni feeñ na ci Cheikh Omar Foutiyou ci dund njabootam googu nga xam ni euh, moo waral ziyaara tey bi taban al ibnu sirru abi ah, euh, al ibnu si al waladu sirru abihi naam al ibnu naam mm-hmm. Mm-hmm. Uh, ñoom seen dund mm-hmm. uh, ay kaawteef kese ay kaawteef kese uh-huh. teg kese moo uh, lamboo ci seen dund soo xoolee Thierno Saïd Nour radiyallahu fekk foofu nit mhm. xadim mhm. ci dundam mhm. wa kazalika qadir ci jëfam hakim ci taamulam moom moom Thierno moom Thierno Seydou Nourou moom Thierno Seydou Nourou uh-huh. ma al <coughs> wujud al mawjud في عهده مثلا الكولونيالي maanaam dund gi mu dundoon tubaab yi tubaab ah. mu am ci xikma boo xam ne bi ba am liberté boppam ba am liberté te it yàlla may ko mhm. benn façon boo xam ne bi mhm. amul ku ko bëgg ku koy gis di moyes amul ku koy euh, gis te doo ko bëgg tax na bi tubaab yi ci boppam seen bopp def nañu lu ne lépp loo xam ne lii euh, officiel yi ñuy yónni fii su fa nekkee lu mu ñëw bu ñëwee lu mu wax jeex loolu la ñuy def moom Thierno Saïdou noonu barakallah man yaqul lahu la mhm. loolu la Thierno Mountakha Ahmed Mountakha Cheikh Oumar. loolu la dong. loolu la taxawee it moom Thierno Mountakha. Euh, loolu la mhm. moom itamit taxaw lu mel noonu. yàlla def daal njaboot ji ba léegi. Mhm. ba xale yu gën a ndaw. yàlla dafa leen xettalil mbir boo xam ne bii. dara gënu koo rafet. barakallah dara gënu koo. dara gënu koo rëy dara gënu ko rafet. sell ci taxawaay. bi nga xam ne dañ ko doon ci seen waajur yi. ku mel ni Thierno Madani. Thierno Madani euh, moom su la neexee. Mhm. nga def. Euh, ndeysaan. Mhm. bi xaw فخرت بل فخروا بي بل فخروا به وبجدي وبجدي ماذا يأتي بعد جدي wallaay ci farlom gi nga xam ne farlu na ko laa bi euh, juduudi mhm. mu dafa nekk dafa ne en résumé euh, du samay wayjur waaw wala samay ay du ñooñu moom ci waaw laa taqul asli wa fasli abadan uh-huh. innama aslu fata maa xat xasal wallahi <laughs> waaye nag moom ñaar yëpp la am ku fokkare maam yi mu am mm-hmm. am na waaw waaye ñoom duñu fokkare kenn dañuy sante yàlla ne fa ñu génni la génni te nit ñu sell yi nit yu baax yi ñu nit ñoo xam ne ñi seen dund yëpp daawa ilal islam teewul ñoom ñu nekk ci. waaw barakallah. jërëjëf Baye Omar incha allahu taala maa ngi ciy ñëwaat léegi ci yow yal yàlla gën a barkeel xam-xam bi. Sénégal seenu xam naa euh, am na yeneen programme yoo xam ñu ñu ngi lay xaar waaye yaa ngi yaa ngi woon ci euh, fu am solo léegi dama lay bàyyiwaat euh, nga continuer ci li nga doon wax ci tukul nga xam am na téléspectateurs yi maa ngi koy wax léegi Thierno Ahmed Tidiane keroog ba ñu dajee Amérique mu def fa waxtaan wu doy waar ci pulaar ma ne ko euh, am na ñoo xam ni ña nga Amérique ay pulaar lañu tukulóor la mais anglais la ñu dégg ak ak ak am na ñu nekk France moom li ma li ma koy xam na ko am na ñoo xam ni français la ñu dégg ak ak ak pulaar te it sa télévision Futurs Médias yenn saa yi dina ku ma ci dama laa sopp euh, xam naa mën na mën nay dégg waaye du mën du mën a wax olof kon nga béggalee ñu ci pulaar spectateur dégg ko nga résumé ko tuuti ci wolof ma ñu delloo sama tijaani bismillah eyyi papa an a jarama bandiraɓe julɓe kadi en ciftina e bandiraɓe ɓe tan caggal yettude allah e julde annabi o mouhammadin sallllahu alih wa sallam ko mbinoɗen ɗo joni ko ko ziyara ceerno saydou nourou e ceerno moutaga ahmad kono noon ko ziyara cheikh oumaral foutiyou ceerno amati diane jaaci haali ɗo ko halwara ko ñande alarba nena makko wiyete ko adama aysé baba makko wiyete ko ceerno saydou taal kanko cheikh oumaral foutiyou o ɗanni ɗanngal makko jahol e gartol jahol e gartol jahol e gartol ko deftere nde waɗa ko haala hen ko ko laabi joyyi cheikh oumaral fouti noon kanko jibini nuuru cheikh oumaral fouti nuuru jibini ceerno saydou nuuru cheikh oumaral fouti kanko jibini mountaga ahmed mountaga jibini ahmadou mountaga ahmadou mountaga jibini ceerno mountaga baɗanɗo en ndeɗo moƴƴere allah gaddanɗo en ngal ɗo dingiral dokkuɗo en nduɗo suudu allah oɗo juma ha mbawɗen ɗo darnuɗo ɗo oɗo rawda ceerno saydou nouru cheikh moural fouti on ceerno muntaga kanko jibinani en ceerno mahamadoul madani ceerno mahamadoul madani darde makko e l'islam darde makko e aduna o darde makko e afrique darde makko e sénégal darde makko e fouta bandiraɓe pop jii ala ko suuɗi hen yamirore e hoddiru allah e moƴƴere makko ha mbawɗen ɗo jooɗade enen foof kawritten ɗo wonno wayanno so ceerno muntaga wirnima gueɗe ɗe catta darto caggal ko ceerno mountaga wirini e faade hannde enen fof eɗen nganndi geɗe ɗe moƴƴere allah nde teddungal ngal l'islamu o fof ina ɓeydi ina yaari so dartaki ha enen fof mbawɗen hejje hen saabu enen garɗen ɗo koye yamirore ceerno mouhamadoul madani gonduɗen koye ceerno madani jamma e ñalawma ndeke noon en gandi foof no ɓeydi bandiraɓe wonɓe funnague e wonɓe leyɗele europe e amérique e asie e océanie l'est e est e ha central e ko conférencier jahowo e aduna o o habri en ɗo joni gueɗe ɗe ceerno bammen sehil men musidɗo men ceerno oumar acte ɓe ganduɗa kañumen coosi rabiatul oulama ul islami sénégal e gardegol ceerno muntaga e gurdam mum ceerno muntaga yalti aduna ɓe tottiri ɗum ceerno mouhamadoul madani e on saaha e faare joni eɓen tambi ha tiɗi eɓe hen ɓe ganduɗa ko yimɓe anduɓe ceerno saydou nour anduɓe ceerno muntaga kono haaji papa an kaalen e o nena makko jeeya ko o jibina ko ɓogge ɓogge koye leydi halayɓe koye diwan fouta ko e tooro ceerno muntaga o jangi gandal fof o timmini o liggima kanko no o woni almudo o moƴƴini o woni ɓiɗɗo e junngo ceerno saydou nouru e gurdam bammakko ceerno amadou muntaga wattimo e juuɗe ceerno saydou nouru gargol mum ɓogge o jebbili gueɗe makko foof e ceerno saydou nouru o wonde mum e yamirore allah e hoddiro e ballal alhaji mamadou ɓeydi ƴañde mo ɓeydi duñde mo yo ar o wonde e makko ceerno saydou ɗo o wonde e ceerno ko almuudo o wona o wona hay batte o wiyani ko babam o o wiyani ceerno saydou nouru ko ƴiƴam cheikh oumar komi ɗo ceerno saydou ɗo o wonde e ceerno omo fitta omo liggo omo ƴooga omo nele omo doga omo arta o ala himme o ala haaju o ala wutte moƴƴo so wona ɗoftade allah rewde konngol allah e konngol annabi e ɗoftade yamirore ceerno ha allah waɗi ceerno saydou nour ruttima e joomum kanko ceerno muntaga o dogi o haalde laamu ngu o ñaagui senghor yo rokke ɗo ngal ɗo dingiral o mofta ɗo ceerno saydou nour fuutankoɓe o rokka ngal dingiral o mofti ɗo ceerno saydou e ballal allah e ballal e e ballal sérenɓe e ballal alaji abdoul si dabbah kanko ceerno muntaga nde ɗum yawti o jooɗi o miiji haqqille makko holko gollude nafta julɓe ɓe nafta l'islam nafta aduna o fof ko darnude nduɗo suudu allah o ala haalis o ala salaire kono o miiji allah ala ko ronki allah ala ko ala o ñaagui allah yo allah rokkumo darna suudu allah ndu o rende julɓe fof o rende fuutankoɓe fof ɓe darni nduɗo suudu allah ndu wonani en ɗo jaatigi mhm. suudu allah ndu darna aduna fof fuuta fof sénégal fof so ari kala fuutanke so ari o wona tumuranke dakar o dogana ɗo o dogana ceerno muntaga jippina mo ceerno muntaga ko karasiɗo ceerno muntaga ko ganɗo ceerno muntaga ko juulɗo ceerno muntaga ko moƴƴo ceerno muntaga ko jaaƴƴo ceerno muntaga ko newiɗo kala haaju mo eno mbaɗa eno gardirɗa foof ma e haaju he koyɗe makko e haqqille makko e hattan makko ha allah moƴƴinanma ma on noon ceerno muntaga ceerno mahamadou madani de ceerno muntaga ne wirni o wi ala ɗo yonata so wona ceerno muntaga waɗe ɗo sawdo bammum ceerno saydou nouru ko waɗantuno ceerno saydou nouru e moƴƴere allah enen ne daroɗen baddanen mo hen mbaɗanen ceerno saydou nouru kanko no o waddene hen ɓe naftoro kanko ceerno muntaga omo handi omo yoddi e waɗede ɗo nde tawno kanko ñaguino allah yo allah rokkumo daña ɗo waɗi ɗo o yaaji kankone omo e ɗo ɗum waɗi ceerno muntaga waɗa ɗo mhm. ɗum waɗi mhm. ɗo ñaagoɗen allah moƴƴere ñaaganoɗen aduna o moƴƴere ñaaganoɗen sénégal moƴƴere ñaaganoɗen fuurankoɓe moƴƴere ceerno saydou nouru noon ko golli e l'islam ko golli e aduna he ko golli e afrique caggal trace mo cheikh umaral fouti wonno intégration africaine ko ceerno ko cheikh umaral fouti fuɗɗi ɗum kono ceerno saydou nouru nde ari o darti darde cheikh umaral fouti o wi en mbawa ɗaccude tubakoɓe en mbawa riwde tubakoɓe en mbawa wasde natodirde e tubakoɓe so wona ɗum en mbawa fewnitade kamɓe ɓuuri en doole kamɓe allah rokki bawal kamɓe allah rokki cuusal kamɓe allah rokki joguitaji min saydou mami wadde maɓɓe maslaha taw ko maslaha mo ganduɗa bonnata l'islam yaltani sharia kutodiren e maɓɓe gollodiren e maɓɓe tawa diine men bonani l'islam men bonani tawa enen eɗen mbawa yawrude yeeso mhm. joni joni musidɗam sehlam ceerama tidiani diaji mhm. omo haali konngol o wi mhm. ko ko wayno yimɓe ƴoƴɓe waaɓe no ceerno oumar acen waaɓe no ceerno amadou tidiane jacen ina poti hokkeede holleede wallede ɓaggodira e seeremɓe ɓe ɓaggodira e média ji ɗi mbawa haalde kokka yimɓe ɓe pinal e gandal fuutankoɓe mbawa yaade no wonirani eno wonani foof jaaden hen mbasen tardude mbasen yaadu caggal ko ɗo ceerno mum ceerno saydou nour soynino o wi yen naata e afrique naata hen e europe naatden e tubakoɓe he liggodiren dewen allah ndewen sunna annabi o gollen qur'ana o kono hoto goppen tubakoɓeɓe ɗum waɗi kanko ceerno saydou o hawri e général dégol en o ñagodiri e yo sénégal heeɓ indépendance sénégal rokkama indépendance duuɓi sappo en tinani kanko waɗa président d' honneur kanko ceerno saydou nour cheikh moural fouti ɗum ɗo foof ko pinal makko e gandal makko e moƴƴere makko e kaara e siyagal e e hannde aduna ono ara ɗum noon haaji papa an barakallah ɗo ceerno mouhamadoul madani yamirno yomi ar machallah tawre tawtore plateau o mi yettina message o joni joni ceerno amadou diane ne jaatine sara ceerno madani gonmi koye golle ɗon e galle he gonmi alay saago mi ruttoto toon mi tawtoyo kadi ceerno min gollita golle ɗe min mbaɗat noon ɗum noon kullu amin wa an tumbi hayrin wa akhiru dawana wa an alhamdoulillahi rabbil wa salatu wassalamu aleykum wa rahmatullahi wabarakatuh musidɗo moon to alwar jërëjëf am nañu mbégte dégg ngeen ko mi ngi Euh, tey jii ñu ngi fii ci 38e euh, édition ci ziar Thierno Saïdou Nourou Thierno Mountaga euh, fii ci mosole Thierno Saïdou Nourou ak en direct télévision Futur Média xam ngeen ni ñaanoon nañu daaw ñaan yàlla may nu fekkee déwén déwén bi ñu ñaanoon daal yàlla daaw mooy ren kon yàlla nañ yàlla may yaat fekkee déwén dégg sunu baay euh, Hadji Omar waaye dégg Seydina Ousseynou fi ñu jaar ci maam Cheikh Omar Foutiyou waaye dégg leen fi ñu jaar ci njabootu euh, Cheikh Omar Foutiyou radiallahu anhu Ceerno Muntaga façon dundindam waaye itam Ceerno Saïdou Nourou ca euh, diplomatie ba ca personnalité ga ca comprendre gi mu comprendre àddina nekk sëriñ di nitu yàlla mais comprendre àddina ba tubaab bi fi newoon yilif réew mi euh, respecté ko jox ko cër ba ñu amee indépendance la ñu def mooy def ko président d'honneur ndax ci coono gi nga xam ne daj na ko pour Sénégal moom boppam Corona Thierno Saïdou yàlla na yàlla yokk leeram tas ci barkeem waaye Thierno Madani ak ay rakkam moom itam euh, ci taxawaayam rawatina seen way jur ba Ceerno Mouhamadul Bachir radiallahu anhu euh, yal na yàlla euh, yokk ko dëgëral ci darajey Seydina Mouhamadin salallahu alayhi wa sallam foofu laa jàddee rek ma jox sama Tijaani ko si waxtaan wi nag foo sentir ci tukulóor waxal loo sentir ci wolof waxal ndax ci ziyaara bii di ziyaara Thierno euh, Saadou Nourou Thierno Muntaga njabootu Cheikh Omar Foutiyou Tall gépp nekk ci adduna bi di la am na ñu dégg olof am na ñu olof ñaari lang yooyu boo ci sentir rek ci maam Cheikh Omar Foutiyou ci dundam nga wax nga waxtaane ko haji paban a yo allah yo moƴƴere min ñagonoma allah subhanahu wa taala balɗe juɗɗe e battane moƴƴe nde wonno so wonɓe seerenɓe ma ɓe goni seerenɓe ma sa woni ɓoosaru hawnaki ɗum la garawa hande noon fouta foof nanɗo sénégal fof nanɗo afrique fof nanɗo aduna o fof nanɗo saabu gonɗen koye télévision fitir média ene yeeɓe e johli aduna ɗi pop eɗen goni ɗo mo massilu dendagal diaspora o pop eɗen goni ɗo mo massilu hannde dendagal leydi france e dendagal moƴƴuɓe france rewɓe e worɓe e dawayiraji gonɗi toon wa hassa ko ɓuri heen hertade dairatu sohna adama aysimo sergi madame la présidente nanɗo e rewɓe mum e rewɓe mum kam fof ɓe calminama eɗen goni mo massilu dendagal yimɓe meɗen julɓe wonɓe to états unis d' to bane debbo sehilma sohna safra'u habibou makki nouru cheikh oumar sohna roqiya mo ganduɗa ko habibu makinuru cheikh oumar e, inchallahu taala an qarib eɗen sinsinati eɗen calmina ɗo passage dendagal moƴƴuɓe sinsinati foof almameɓe ɓe e seremɓe ɓe e surafa en wonɓe toon pop eywa ko namdiɗa ko cheikh oumar radiallahu taala anhu jay bun mo babaɓe ɓi ko wa halwara man cha'u cheikhina ama yubsiru sa waɗi gurnam cheikh oumar radiallahu taala anhu ko duuɓi capanɗe jeeɗiɗi mbaɗata o jibina ko haj o yalti aduna ko fergo nelaɗo allah ne yaara ujunere e temedde e capanɗe jeetati wadde duuɓi makko ko capanɗe jeeɗiɗi ɗum waɗi jeeyi biman oumar wimo biman oumar al fouti yusummiya cheikhuna ahal hajji wal gasawati taqawa humu chahru sa andamo biman ismuhu fina salasatu ahrufin aynun wa mimun summara un tu akharu wa qala badu suqati atqanu dabɗa umruhu bi aman ramzu aynin yuqarraru hol umarul fouti radiallahu taala anhu limore inde makko ko karfeje tati ko ayni e mim e ara ayni o ko capanɗe jeeɗiɗi o wuuri e duuɓi ko duuɓi capanɗe jeeɗiɗi mim o ko capanɗe nayyi o jangi e seeremɓe capanɗe nayo maala humina suyuh so tawi ara o ko wa ara ramzurra komi atani o wuuri kanko cheikh oumar ko duuɓi capanɗe jeeɗiɗi o jangi e seeram ko capanɗe nayo won wiɓe o wallifima defte temed won wiɓe ala omo humpiti fannuji temed ɗo ko ala haddi ahadir riwayatayni kala hen ko jaruɗan e habra guima seeɗa kanko woni mo jaddidu rasme din fi waqtihil ali nde wonno kala waktu rijalullahi fi ayamillah rijalu dunia fi ayami dunia cheikh oumar taala anhu gurdam ɗam heewani kono ko ittuɗo so ƴeewi o jibina ko halwar ko ɗon jiknaɓe makko jibina bi halwara makbourayni yumma koye bammakko fof leli ko halwar kanko cheikh oumar radiallahu duuɓi makko capanɗe tati o yalti fuuta mm. ñande o wayni fuuta e o natti fuuta mm-hmm. ko duuɓi nogas nde o natti e leydi gambi e ko waɗi e kajor e bawol ha o natti fuuta ko duuɓi jeegom so mm-hmm. tawi kalɗa ko gambi ahmad beeteɗo ahmad damni ahmad eh, ahmad abne abdallahi ko almudo makko sa ari mbakke bawol mballa mbakke baari ko ɗon o yirdirno e oumar anta salli almaruf bayne alkasi waddani bi mamouar anta salli kañum woni bammum sérigne touba radiallahu taala anhu mhm. ndew yidiri e on de sérigne touba suwa yiide aduna kanko cheikh oumar radiallahu taala anhu so tawi nawtuɗama ko banggue tiwa won 1848 o ari hoore fonde o yidiri ɗon e alpha ma yero weelo nde o ittata sirru o e desnal ngal yi aduna hawri ko duuɓi sappo haj malik 22 wa umruhu ala wakami ɗum woni ko hawra wonde seydi alhaji malik taala anu o wuuri ko duuɓi capanɗe jeegom e duuɓi jeegom hono no ardi ko heewi e marsiyaji o woni cheikh oumar radiallahu taala anu omo yaara e duuɓi capanɗe jee joyi e duuɓi jeetati ramso hannin mhm. o yidiri e fuuta allah reni omo golla ɗum e yamirore nelaɗo allah e ñande o ɓaari ɗum e nokku beeteɗo dagambere saabu ko dagambere ismun lil mahalli wa jaruha umarun li saidin yutasa duna kunyati dagambere nde o ɓaari ɗon fetel o ko yabban ko fergo nelaɗo allah ne yaara ujunere e temedere capanɗe joyyi duuɓi makko ko capanɗe jeetati wadde o tawdiri e cheikh oumar radiallahu taala anhu duuɓi nogas e gurdam tawi ɓe jidirani o woni cheikh oumar so tawi noon ko fuutankoɓe namdiɗa hol cheikh oumar kala moƴƴo e leydi he walla e leyɗele he so tawi kaalama a tawat eɓe gandi moƴƴuɓe walla eɓe déconise eɓe gandi moƴƴere fuutankoɓe kono fuutankoɓe ɓooyi moƴƴude kono nde cheikh oumar arani nde ɓe natani e tarih nde wonno rabbuka yahluqu ma wa rabbuka yahluqu ma yachau wa yahtar ɓenni seydi ahmad al badawi en seydi abdoulkadir jelani en seydi ahmad al rafai en hewɓe ɓenni enen dokka tawi ko yeɗeɓe ha yetti ceerno cheikh tidiane o rokka oɗo ɗariqatal ahmadiya kono ko boɗejo kono nde cheikh oumar ari radiallahu taala anhu mo arrihu goto ne leydi lubnan o wi gorko ɓalejo joom nguru ɓaleewu mo leyɗeele temedere e capanɗe joyi nganndi holi kañum ko fuutanke o woni cheikh oumar radiallahu taala anu on woni jaanoɗo jérusalem annda toon ko fuutanke on woni jaanoɗo ashar andiniɓe ko ko fuutanke on woni janoɗo almadina almunawwara hoɗi nelaɗo allah sallah sallam wondini sharif mouhamadoul ghalil e kodda adama aysé kanko noon sen kaalimo cheikh oumar ko nangue mungue kono ko nangue fengue 1864 cheikh oumar dagambere ismul lil mahalli 1864 seydou nouru seydou nouru cheikh oumar radiallahu taala anhu yi aduna oɗo seydou nouru mo kalten omo hecci oɗo ceerno ahmad mouhtar sakejo hitande saabu kanko jibina ko 1864 ceerno ahmad mouhtar sahejo mo ɓogge jibina ko 1865 to seege mhm. ceerno seydi nouru cheikh oumar radiallahu taala yalti aduna ko 1980 ceerno ɗum ko golle ma mi yiɗa yaade toon kono so tawi a ƴeewimo ganda cheikh oumar kadi nde ceerno seydou nour radiallahu taala anhu allah addani en joom nayyi o jibinaɗo 1914 yalti aduna woni ceerno mountaga ahmadou mountaga cheikh oumar radiallahu taala sa ummima e makko aɗa yiɗi andude hol cheikh oumar foofu dinaa ko bamtu tuuti ci wolof bu ma paree saɗa yiɗi anndude hol cheikh oumar gorko ko geɗe tati o wan o waɗata o neɗɗo ko geɗe tati jogoto annde somo yiɗi heddade gurdem e mayde o annde ko kanko alay sago geɗe tati tawe alhaddu yabqa zamanan bada katibihi wa sahibil haɗɗi tahta lardi matfunu mhm. al amalu yabqa zamanan bada amilihi wa sahibil amali tahta lardi matfunu noonne kadi alqawlu yabqa zamanan bada qailihi wa sahibil qawli tahta lardi madfunu sa ƴeewi oɗo oustageul ahlaqi walsaqafati walhadarati walhimami ceerno mouhamadoul madaniyu radiallahu taala anhu elle o ari o wiide o ari ko wiide tan golle cheikh oumar ɗe kujjidini aduna kono heddi ko golle cheikh oumar han yonti ko golla ɗen cheikh oumar koko anda mo weeli emo metti cheikh oumar ko cheikh oumar ko asaliyun sarmadiyun ko dokkal ngal allah rokki fuutankoɓe allah so rokki tettata cheikh oumar dañi kono gollen ko ɗum cheikh ceerno men mouhamadoul madaniyu mhm. ko ɗum o ari hollude alam o o addi ɗum noon bi sakafati wal hadara yani o modernise hunde nde o wi sa windi mhm. tarih heddete mhm. sa haali ko moƴƴi tarih heddete sa golli gollal moƴƴal tarih heddete o rendini gueɗe tati ɗe woni oɗo ziyara ñalawma hanki o annduɓe ɓe kawri kaali hannde julɓe ɓe nan ɗo juuli mbirdi ene payi e asrul jumu'a janngo ko noon ɓaawa janngo ko noon ɗum ɗo fof ko ha cheikh oumar radiallahu taala anhu wawa andede kono tawa koye golle ko ɗum woni himme oɗo ceerno mhm. ɗum waɗi mbiɗen mo ko oustadoul ahlak mhm. wal himam yo allah yoɓan en mo moƴƴere kanko e miñi ko en ɗowrendingal ɗo gollal heddana en ɓeɗo mawɓe nde wonno warubba haalin mhm. ablahu min maqalin min kaala tan kono ko himme moon yettinta papa an a jarama ngeresimilñuko ngeresimilñu ko ci wolof bala may jox sunu baye omar moom itam euh, ci laajat bi day ñëw ci tukalóor rek euh, nee na ziar bi ba ñu koy sos weesu ñett lañu woon te moom mii ci la bokkoon digganteem ak Thierno Mountaga ak taxawaay bi nga xam ni Thierno Mountaga amoon na ko ci euh, xadara way bi euh, xadara maamam ni ci Ndakaaru ba Fuuta gépp ñëw fekk si ko fii moom itam dinañu ko wax ci tukulóor ci pulaar pour téléspectateurs yi gën koo safoo mais nga résumé ñu ko loolu ci wolof. Papa An di la nuyu di la ziyaar di jéggalu bu baax a baax di am mbégte bu baax a baax ci jotaay bi. Mm-hmm. di am mbégte ci plateau bi. ndax télévision bi nga xam ne ci lañ nekk mooy télévision alam bi muy TFM. di nuyu soppi yëpp El Hadj euh, si ñu ngi koy nuyu di ko ziyaar. Serif si. di nuyu suñu waajur bi nga xam ne moom moo fi nekk incha allahu taala. di ne man mu masilu diaspora bi yëpp laa. maa ngi fi toogal France di fi toogal Belgique di toogal diaspora bi yëpp comme ni nga ko xamee. ba Allemagne ba Amérique ba Allemagne ba Amérique. incha allahu waaye fi nga xam ne falaa duggee ci Cheikh Umar radiallahu taala anhu mooy wax naa ne boo defee Cheikh Umar. Haj Bachar la judd muy hijriya bi mu amee téeméer junni ak ak ñaari téeméer ak fukk mu ngi génn àdduna ci hijriya bi mu amee mamrasun mhm. muy mille deux cent quatre-vingt boo wàññee ay atam dalay jox soixante-dix soixante-dix ans la dund cheikh soixante-dix ans la dund cheikh Umarul Fuuti radiallahu taala anhu góor bi nga xam ne africain la di nit ku ñuul xeetam di pël làkkam di pulaar dëkkam di xalwaar ci fuuta mu ngi dund soixante-dix ans Cheikh Oumarul Fouti radiallahu taala anhu 70 ans boobu boo defee Umar ayni bi da jox 70. miim ramzul arbain mm-hmm. dalay jox 40. 40 sëriñ ñoo ko jàngal ci kaw suuf moom Cheikh Umar radiallahu taala anhu arabi warraaw ramzu mi'ataan wa mi'ataani ramzu raa. Mm-hmm. ñaari téeméeri téere mu ngi ko wottu ci boppam am na ñu wax lii. ndax benn mu arriku nee na Cheikh Umarul fuuti bi muy dem Makka taxaw na ci béréb bi ñuy wax Xurmuz muy sant yàlla. moom Cheikh Oumar radiallahu taala anhu mu ne xeetu xam-xami buñ ko jëloon lakk ko def ko muy doomu taal wesaare ko fii ci géej gi muy hurmuz bahrul ahmar man Cheikh Oumar radiallahu taala anhu al fuuti mun naa ko bindaat masaat ko duma bàyyi mas duma bàyyi sidda ana min man qaama bi haadihi al maqaam walillahi alhamdu ci mm. xilaafam ci Cheikh Tidiane noonu la bu amee xilaafa bi ci xam-xam moom Cheikh Oumar radiallahu taala anhu waaye génnam àdduna ci mam rasul la. mam rasul moom Cheikh Umar radiallahu taala anhu mam rasul muy 1280 moom la lay jox ci hijriya. Mhm. raabi am na ñu ne ñaari téeméeri téere la def taalif ala haddi ahadi ahadi riwayatayn mhm. boo ci jaar mu arriku yi nangu nañ ko moom mooy historien yi mhm. moom Cheikh Umar radiallahu taala anhu bi mu jógee wura mahdi yu gannaaw bi mu defee axzu tariqatu tijaniya dem ci tukkeem bi def ñaar fukki at ak fi mu jaar yëpp. ba ñëwaat ci Fuuta ñaar fukki at la ci def moom Cheikh Oumar radiallahu taala anhu boo seetee ci ñaar fukki at yooyu juróom benn at yi mu ngi ci Afrique bi. Mhm. di xool mag ñi di jël ndenkaane bi ko yàlla jox di ko jox ñi nga xam ne ñoo ko moom. ndax mhm. moom Maodo muudi u la dafa am ah. secret bi yàlla defoon ci moom. Mhm. ñi ko moom ñëpp foog ñu jot ci waaye moom mooy central bi. moom Cheikh Oumar radiyallahu ta'ala anhu te teewul te teewul séddale na ko séddale na ku maandu la wallaahi ndax Cheikh Oumar radiyallahu ta'ala boo seetee bi mu gënee adduna mhm. bu du toon fépp borom xam-xam di dem mhm. ñu nangu ne kii borom xam-xam la Cheikh Oumar dem na fa mhm. bu boobaa ñuy wax léegi ñu gam leen boo demee xarabi yéen di fa fekk taarix Cheikh Oumar radiyallahu ta'ala ñoom xam nañu kan mooy Cheikh Oumar ci xam-xam boo demee fi ñuy wax zeytoon ci Tunisie ñooñu xam nañu kan mooy Cheikh Umar radiallahu taala anu ci xam-xam mhm. boo demee fi ñuy wax Azhar ci Égypte ñoom xam nañu kan mooy Cheikh Umar radiallahu taala anu ci xam-xam ba Makka ba Médine ba Makka ba Madina ba ni mu fa jiitee ba ni mu fa jëlee soxna loolu lu gudd la ba ni mu jëlee soxna si andi ko soxna saa ngi tëdd segu wa zurriyatuha baqiyatun ila yawmi alqiyama ndax moo loolu ci demande rasul sallallahu alayhi wa sallam ndax bi mu gisee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa muus dafa ñaan yonent bi sallallahu alayhi wasallam dama bugg barke yàlla defal ma ko ci sama deret moo tax day des Cheikh Umar radiallahu taala anhu kuy des la boo xoolee jëf ak setu Cheikh Oumar yi ni ñuy jëfee ci alam bi mhm. ñi ngi ci xam ci États-Unis d'Amérique ak ñi nga xam ci diaspora bi ak sët yi nekk luga ak ñi nekk fi ci Dakar da nga xam ne Cheikh Oumar radiallahu taala anhu kuy des la du fi jóge ba yowmal xiyaam tabarakallahu euh, sama tijaani gaa yaa ngi may wax léegi ne ma euh, waxtu yu jot na xam naa mënul jàkk nag altine insha allahu taala il faut que ma amaat la il faut que ma amaat la altine dañuy defaat direct euh, booba loolu dañ koy yendoo ndax temps bi danañ ko gën am waaye gaa yi may ma trois minutes rek ma jox suñu bàyyi Omar ci waaw bisimilah. <laughs> Eh, sama ñaari baat yi wala doom yi. Mhm, mhm. doy nañu ci mbir mi lool. jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf aj ah, bi may wax. Mhm. mooy bi ñuy commencé. bi ñuy commencé ziar bi. di xalaat naka la ñuy defee ziar bi. Cheikh Mountakha woo ma mm-hmm. woo Cheikh Ahmed Tidiane Sall mm-hmm. Thiès fii ci biir euh, kër euh, Thierno Saïdou Nour mm-hmm. radiallahu taala anhu ski ñu ngi commencé pour jël li nga xam ne lii moom la wasaiq mën a joxe maa ko tarjama ilal fransi mhm. maa def tarjama boobu yàlla def masala boobu mhm. dugg ci mbir mi mhm. ñu def muqtaraxaat iqtarax na an yakuna hakada aw hakada moom Ceerno Muntaxa moom ànd na ak suñu euh, iktiraxaat yi ne kay am na ñu ma war ñu bëgg <clears throat> dugal ci loola mm, gis naa leen waaye suñu amoon xëy nañu mën a taaxiirlu ba ci kanam yàggul mu woowaat mu aha li ngeen fii defoon iktirax di sunu benn sëriñ mm-hmm. léegi léegi dugg na ci mm-hmm. Mm-hmm. te duggal na ma kon nag yaak man la waxal yaak euh, Thierno Kelly yéenay taxaw ci bidayati alkitabat fi ma yajibu an naquma bihi imma fi lbidaya aw min xilalihi aw min baadi ñu ne ko nag loolu moom kulluhu taata amrik taata amrik noonu loola taxoon ma ne on était trois macha allah ziar bi sasu waaw jërëjëf kon ma bàyyi la rek nga tàggoo waaw waaw waaw waaw ah, nuyu jërëjëf mbokk yi nekk Fuuta yëpp uh-huh. ak Fuutanke yu nekk fu uh-huh. ah, mbirum diaspora bi maa ngi ci nuyu les américains mhm. euh, de de résidence mhm. mais je sais que ñoom américains yi wala Fuuta bu nekk Amérique mhm. Sénégal bu nekk Amérique Afrique bu nekk Amérique ñooñu am nañu benn compréhension ak benn euh, déggin mhm. ci lépp loo xam ne ñu ngi koy wax euh, fii te dañ cee euh, dañ cee bég bu baax ndax Philadelphia mhm. kii wax na sànq Cincinnati ñi fa ne barkala xamante bu baax xamante nañ xamante nañ New York di nuyu waa daayira Philadelphia ba Kentucky daayira Gàlla Cheikh Omar Euh, waa waa euh, Cincinnati. Euh, waa New York. waa New York ak waa Washington ci boppam. bari wuñu fa mais ñu ngi foofu tuuti. Mhm, mhm. li des ko Atlanta aussi. waa Atlanta wallaay wallaay wallaay. Atlanta aussi. ay jàmbaara fa ne ay jàmbaara fa ne ñu ngi leen nuyu. jërëjëf jërëjëf di leen féliciter. suivi bi ñu suivre. lépp loo xam ni dañu koy wax fii. barkallah. minal bidaaya. ila nihaaya jërëjëf jërëjëf aaj. nahnu minhum. Uh-huh. wa ilayhim aydan. alhamdulilah barakallah. jërëjëf jërëjëf Baye Cheikh Omar yal na yokk la dëgëral tabarakallah Thierno am nañu mbégte euh, xam-xam bi sell na rafet na yal yàlla gën a barkeel lépp euh, ma bàyyi la nga tàggoo waaw bisimilah. Euh, salaamaaleykum wa rahmatullah bandiraaɓe juulɓe bandiraaɓe fuutankooɓe min calminii on min juuriima on min mbayniima on eɗen njaarnoo dendagal ɓesgu cheikh oumar radiallahu taala anhu fof e hoore ɓesgu ngu hadimul hadarati madana mountaga ahmad thian mountaka eɗen dewna hen kanko e miñiraɓe makko e dendagal julɓe fuutankoɓe jagguɓe e ngal ɗo gollal ha wayni e eɗen calmina ɗo kadi eɗen jettina salminandu diaspora o foof e to ganduɗa sergi fedde adama aysa e mawɓe sergi jaati gueɓe thian mountaka kamɓe fof guila e ardiɓe ɓe ha e mawɓe wa mantala joli wa mantala joli mm, mm, mm. eh, kamɓe fof inchallahu taala ha compagne ha fofof eɗen jettina ɗo kadi salminandu belgique naaɓe musidɗo men ceen cheikh oumar mo ceen ahmad dian jooli e musidɗo men yaqouba demba accamo hawre mo ganduɗa nan jooɗi to leydi belgique himɓe mabɓe e anniyaji mabɓe fof eɗen gaddori e dendagal almuɓe sergi fof inchallahu taala eɗen jettina ɗo kadi dendagal eh, diaspora naaɓe ɓe ganduɗa alamu o foof mm. ken awlamiyankoɓe sen mbiya eɗen limta eh, dañat ko jejjinɗen wona mo limti woppa mo limti eh, juumat tan inchallah ɗum noon papa min beltima e jalsa e min calmina ɗo noon enɗam amen tomin mm-hmm. jeeya to min mm-hmm. gari ɗo koye inde yamirorama en khalifa amen ceerno mouhamadoul haadi mo ceerno ndiaye eh, albabaɓe e dendagal juudenaɓe e lawankoɓe foof assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ila sanil marra a jarama seydi an jërëjëf mi ngi noonu inchallahu taala ñu ngi fii ci mosele ceerno saïdou nourou xam ngeen ca kanam tuuti daañu def hadratu juma bu mag a mag a mag a mag inchallahu taala waaye suba it bu nu xëyee daañu jàng alquran ñaan réew mi ginnaaw bi ñu nuyoo njiitu mi président de la république nuyu soxnaam kilifa yi mi yëpp nuyu président directeur général hadj youssou sunu directeur lépp tabarkalaaw groupe Futurs Médias kenn amul seen fay seen taxaw seen euh, taxawaay euh, gërëm baax a jili ñang mu baax bi fi bàyyi ko léegi Oustaz Ndiaga Seck euh, ñaanal leen yal na yàlla yokk leen dëgëral incha allahu taala suba bu ñu xëyee wàcce kaamil ci ngoon si xam nga daañu def euh, conférence bu mag a mag a mag incha allahu taala dimanche it kazalika bu ñu xëyee def noonu euh, ca ngoon ga mu nekk cérémonie officielle bi waaye altine nag incha allahu taala ca la ñëw tëj tëj bi euh, borom xam-xam yëpp ñëw ñu ñaan réew mi yàlla dolli fi jàmm dolli fi barke ñaanaat incha allahu taala kilifa yi borom xam-xam yi ñoom ñëpp daal di ñëw xalif généraux yi kenn ku ci nekk sa ndaw dina ñëw réew mi kilifa yëpp ñëw ñu jàng alquran ñaan waxtaani xam ñaan réew mi yàlla defal ñu jàmm yàlla yëkkati réewum Sénégal ñaanal ñi ñu fi tax a daje yàlla yokk seen i leer taas ñu ci seen i barkeem mi ngi noonu nuyu euh, soxna Safura Tall ma nga Amérique ma ngay seetaan waa Sergi euh, waa Mantala Zoli soxna Mariam nu ngi koy nuyu euh, soxna Mariam madame Tall di soxna Thierno Saïdou Nourou moom itam ñëw na bàyyi ko ba Amérique ñëwit nu ngi koy nuyu baax soxna Rugi Tall ma ca Euh, Cincinnati ñoom itam kenn amul seen fay njabootu Cheikh Omar Fouti yu googu nga xam ne ni ko sunu baay Omar waxee léegi nga xam ne ay jàmbaar lañu waa Mantala Zoli ñoom itam waa Gàlle Seexu euh, soxna yu ma Aïcha Ba ñoom itam tabarakallahu euh, ñoom sa xaaji bay di aan jàmbaar yooyu nga xam ni ñu ngay liggéeyal Cheikh Omar di liggéeyal islam yal yàlla gën leen a barkeel yàlla gën leen a dolli gërëm waa Filadel fi gépp ñoom ci Thierno Baro tabarkallaahu euh, imam lii euh, kenn amul seen fay ay jàmbaar lañu ñaan Thierno Mountaga yàlla yokk leeram moom mi nga xam ne moo xalaat lii ñaanal Thierno euh, Saïdou Nour yàlla yokk leeram mam Cheikh Amadou Fouti yàlla yokk leeram tax suñu seen yi barke ak mbooleem nitu yàlla bu tëddee réewum Sénégal yàlla yàlla defar suñu mbiri àddina yàlla defar suñu mbiri àllaaxira télévision Futur Média dina ci ànd ak yéen waaye direct bi dañuy àndaat ak yéen altine ci tëj ba dara du leen ci ump daañu continuer waxtaan bi ak sunu bàyyi Omar euh, aaj ak tabaarakallahu sama Tijaani euh, Njaaj di borom xam-xam bu kenn werantewul altine lay doon incha allahu taala seen mbokk seen xarit xaritu mboolem ku baax pap an wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu tonton mag moo nekkoon ci régie bi tabarkallahu Cissé Apulaay euh, ñoom ñëpp rek euh, Ahmed yal na yàlla Pape Silla euh, Kebe ñoom ñëpp tabarkallahu Kara of tabarkallahu Mbisaan ñoom ñëpp yal na yàlla gën leen a barkeel Cissé commercial tabarkallahu mi ngi noonu kon ñu ngi leen jox dig daje siire nag di ngeen koy am fajar gi incha allahu taala bis bu nañu enregistré leen bu bees ndax soppi Sidina Mohamed yaa ngi koy laaj daañu ñëw di ko def direct wala nu koy enregistré bi am 6 heures et demie du matin rawatina aljuma ji xam nga aljuma ji ba jo topp nag maa ngay invité Hadj Malick Diop ca Thiès wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. اللهم تب علينا اللهم اغفر لنا اللهم اهدنا